je me sens un homme blessé. Parce que je vais vous dire ce que j'avais dit à son excellence. Macky Sall, vous méritez, vous méritez d'être appelé excellence. Quand il s'est agi de modifier la constitution sénégalaise, Je vous ai dit, Excellence, je suis contre la limitation des mandats. Je suis des mandats. Et vais aujourd'hui, que vous quittez le terrain, je vais aujourd'hui me battre pour que la constitution sénégalaise soit remodifiée pour que le peuple souverain seul limite les mandats des présidents de la République. Je suis contre la limitation des mandats et je l'assume. Cette tombe-là, tout le monde sait que, en le perdant à la tête de l'État, ça retarde non seulement le Sénégal, mais l'Afrique et le monde. Je n'ai rien à ajouter d'autre. Excellence, Monsieur le Président, votre choix est le bon choix. Je suis le directeur des structures de l'APR Yakar. Avec vous, j'ai dirigé les structures de l'APR Yakar. Hier, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas me donner la parole. Je suis le directeur des structures de l'APR Yakar. Le premier congrès, Excellence, votre premier congrès que vous m'avez donné la chance de, de diriger, Vous savez très bien combien de militants vous aviez. Et aujourd'hui, tout ceci montre que nous n'avons pas assez de vous, Excellence. J'y ajoute la Première Dame, parce que c'est notre Première Dame. Elle sait très bien que Mbaye est un compagnon du président Macky Je ne cherche rien du tout Rien du tout, sinon le respect et la considération. Rien du tout, et la considération. Je suis un homme musulman. Le président Macky Sall lépp la ma yéene mais yàlla mooy joxe nguur ku mu ko jox rek d'accord naa ak yow jàppale ko ñii dend ak moom jox leen lim leen jox. moo gënoon jox ma ko parce que li ñu am ci mbooloo ci seen ginnaaw man bu ma joxoon li ñu leen jox du ma ko indil njëriñ ci stabilisation du Sénégal moo tax loo décidé rek président waxoon naa ne d'accord naa ci tànn nga kii indi ko Parcelles Assainies ne ko àndal ak Mbaye Ndiaye jàppale ma ci ci ci parti bi je l'ai couvert j'ai trouvé en lui en lui que c'est extrêmement courageux mais gëm la président Macky Sall Amadou Ba def laa gëm daf laa gëm dama ko xool côté bu ne ma ne ko bés bu ma gisee ci yow rek nga am comportement boo xam ne amul loyauté diggante yow ak président Macky Sall moi je me retire mais dafa ñëw ma jox ko lépp mu ànd ci ak yar ak teggin xam-xamam les cadres là qui parlent nous sommes fiers de vous tous ces cadres là xam ngeen ne président Macky Sall nit ku jub rek la bëgg mais ku ku nangoo sonn ku nangoo sonn wante ku nangoo am njiit doomu aadama day nangoo am njiit euh, Luc vous êtes un des meilleurs cadres de ce pays là mais ñu mel ni yow ñu mel ak jën farba jën farba saar xam nga ne Macky Sall soxla ne démb ak tey ak le ak le jeune le jeune le jeune euh, euh, Joola national du parti président gàcce ngalaama yaa ngi dem gàcce ngalaama mais le peuple a toujours besoin de vous et restez à côté du président, du futur président Amadou Ba. Il a besoin de vous aujourd'hui. Demain également, il aura besoin de vous.